dogu leen dafa ak feem yu Rama Thiam. waaye lan laa ci. ñëwal. bàyyi li yooku bàyyi li yooku ah baax na. dama man histoire ma de. ala la woon jàmm rek laa laaj. dama xam ne sama soxla yi ñu am wërsëg lañu. ndax boobu léegi man maa ngi wër monsieur le ma fexe ba ko am si moom dara waaye yéen da ngeen génn yaa mayaa rek ko monsieur le maire am dara da ngeen bëri wërsëg gis nga quartier bi yëpp xaar nañu amuñu. Hmm. yéen ngeen génn rek am. man kay maa am dama man la ko jox. waaw ma bëggoon. nga abal ma vingt mille francs yi ma am nu ma def ndax comme koñ bi quartier bi yëpp fukki kër la ak juróom ma dugg ci biir kër yi kenn ku nekk mu jox la mille francs nga téye yaakaar ndax coow li wàcc ma loolu dong la du dara. li hmm? dafa mel na nga yeewu tey te naanu say garab man maa lay abal man man. li ma monsieur le maire may ma abal la ko nga séddale ko bu ko sax jéem xalaat ndax dama ko dul def. waaw ba doo ma nijaay dërëm laa la dul jox ndax monsieur le maire la xaw monsieur le marché fii la toog ba ñu ko joxee leket gi mu teg ci juróom benn junni ñooñu tey imaam bi toog mu jox ko ñeenti junni mu def ci poosam. sama loxo bii mu teg ci ñeenti junni ma def ko sama poset dërëm laa jox ko. waaw bi ba doon sax sédd ma. sédd. de mais xaalis bi yow ko. ku ko moom. ah mais dama si am ndox monsieur le maire man la xam-xamu la man maa ko fi indi. waaye man maa am wërsëg. rama ma si ñaari junni sax au moins. dërëm laa la dul jox. yaa ma. tu dis l'argent c'est pour toi seul. et tu rêves. voilà. tey bi moi la. on est pas c'est un a mais pied wu. waaw waaw wax na dëgg. ñeent eh. ñeenti junni yi moom eh. si la bokk. Mhm. da a jox ñaari junni mu téye eh. mu téye ñaari junni mais xaalis du pour yow kese. am nga si droit mais quand on a quitté ma chère. il ah. n'a pas de cœur n'a pas de tête même là il a plus l'argent là au lieu de payer quelque chose naka mi. dans amu si ngóor de xaalis la amul ngóor il a mis si si c'est. yooyu yaama kaasal. a bee dix mille yaama doonee. jox ko dix mille am. un sou doo ko jot. un sou ndax. ba mu génnee xaalisam ca poche ba. jox la dama ne doo ko mu ne la am nga ne doo ko laal. mais man ma nangu. yëfu kilifa la def parce que yaay mu gëm moo tax mu bàyyi koog yow. nga jox mais c'est waaw ba xaalis daal. xam nga lan la rees na ndax ma nga ma jox. Moussa Ndiaye mu téyel ma affaire de la la Moussa Ndiaye yow yow sàcc nga. waaw xaaral jàmm moom ko defee même la grande voleuse Yama. ñeenti eh? junni yaa ngi ci Paola. Paola. waaw Paola. waaw Paola nga bakkan mu tàcc. Yama la

boo ànd ak nit ngeen am dara da nga koy sédd. ah waaw yéen àtte leen ñu nag. am mu ne jëlul mu dellu def ko am mu ne jëlul mu ne ma am man ma jël léegi man mi nangu koy eh, man la sama ko am. Ah. mel moom laal ko yow na téye ndax yow yaay mag loolu la def. ma ne waaw. fii mu nekk nga ah, xam nga lu am. Ah. jéemal fexe noo lijjantee ñaari junni jox ko waaye ñeenti junni yi. Paa Ura dencal ma ko dafa am lu may lijjanti. cëpp Rama yaa bon. rama yaa bon yow bu may toroxal moo la neex waaye leen laa la bëgg a xamal de man ah. léegi xam naa nu may def du ma sax boole wax xaalis bi nga xamante ne moom laa jëlee chef protocole hmm. moom laay xëy seet moom laay dem kër gu nekk ma dugg ma jox la waaw faut pas faut pas faut pas oublier parce que la prime mon argent a volé yi nga xaalis bi nga jël ci chef de protocole soo ko séddalee caabi dina la féete ginnaaw te man mais nag aw ma jot ci dem prison di seeti kenn yaa xam. tu vas la suivre tu sais pourquoi tu vas la suivre parce que tu as aussi tu as volé mes 10 000 francs la vieille. <laughs> oui tu as volé. 600 va même toi même là tu as parti. yow da ngaa xàmmeewul 6 ak 9. sama xol wala kàcco kàcco de kàcco ya ah. ba la te te parti la. ma ne buñ ma tëjee yaa ma indi lekk. man man ma ëmb bool naan monsieur Diop laa indi xiif dina la rey. hey waa Sénégal. ndogule dafa ñëw ak feem yu bees waay ñamal ñu ci ndogule bombe vagabond la ay Michel Guetman la rama caam jéegu puso salaamaaleykum kii du Tony ah kay chef de yow maa ngi de yow mii waaw waaw yow yaa bon déet bàyyi daal bu waxee noonu barke rasulillah yow gannaaw ay jàmm suma xaalis moom kay lool dinaa la ko jox bu soobee yàlla dama doon ñëw rek pour jéggulu waaw waxal xam naa ne moom yow sax tooñoo ma man xam naa ne monsieur le maire laa amal affaire du yow man dama yaakaaroon monsieur le dalaa jox xaalis bi rek nga war ma kaa jox nga téye ko looloo waral ma def li ma def rek. waaye yàlla bi nga xamee loolu. Ah, ah. ah nga xam ne man ah bi ma tapale kat man lii njaayum yàpp bi laa yaakaar politique bi moo ma boole ak chef de quartier moo ma boole ak monsieur le maire. kon nag bu may yónni ci yow mhm. damay ñëw ci yow ci fula ak fayda njëkk ak teranga ngeen def ma li ngeen ma def dëgg door ma jël suma xaalis rax si doli tàndar ma bi ma naroon a doge ngeen yëkkati ko jëw yóbbu ko barke rogo yàlla loxo loolu duma leen ko baal de tàndar ma bi jëluma ko de yàlla xam na ko jëluma ko jël nga tàndar ma bi wallaay jëluma ko maa ngi jéggulu de baal ma ak rek man maa tooñ man xam naa ne maa la tooñ Ah, maa la tooñ dëgg dëgg xanaa bala ma lay baal nga jox ma suma xaalis loolu kay amul benn problème xaalis bi moom kay moom laalu ma si dara ni ma ko téyee rek laa ko téye woon looy def déet jarul sigi xaalis bi la wallahi mooma maa ngi jégalu di la baalu a bu baax a baax xam naa ne moom tooñ naa la ba si kanamu yàlla waaye neexuma neexuma de li ma la tooñ neexuma parce que xam naa ne yow defoo ma dara yaakaar gi ma na ne dañu jox xaalis bi rek moo tax ma def loolu waaye jégalu naa ba si kanamu yàlla ma bëgg nga baal ma àq bu baax a baax ndax sama kër ba ma yeggee njaboot gi neen ma papa lool boo ko lekk prison nga jëm te man xam naa ne man sa yow sama xarit nga doo ma yóbbu prison ndax sama xarit nga man xam naa loolu baal naa la uh-huh. ndax man julit la uh-huh. waaye nag beneen yoon bul ko defaat du ma ko defati ndax am na ñoo xam ne uh-huh. liggéey rek la ñu yaakaar. dëgg la lii laay yaakaar lii dundale suma njaboot. dëgg la nga jël ko dëmb dëmb nelawuma ndax lii laa naroon a jënd suma ñaari xar yii. Mhm. lii dama koo mujj a leb sax. Mhm. ndax xaalis bi nga jël ci man. barke Fapes nag léegi nag dinaa la xamal benn affaire dinaa la baalal dinaa la jox ndawal sax. neexalaale la dix mille pour ko def pour nga rus. ah rus naa rus naa de li nga def de góor doom moo ko mën rus naa de. lii la séeréer di wax cunu dikk cunu. junni dik junni ik mooy ñaari junni ñaari junni jox naa la ko ah. may la ko nag xam nga li tax ma may la ko ah, ah? ngir yow pul nga man may séeréer nga def ma lii dem ñoo lu si ak balal naa la tegal da ci lii pour nga ruusaat ruus na ruus ruus naa kay waaw ah, dama may la yàpp ah nga xam naa ne géej nga ko wallaahi sa yàpp dinaa baax yow nag bu ndaw ngay rey sa yàpp day nooy loolu yëpp sa yoon nekku xar mi moom <laughs> duuf na de xar mi duuf na de lan dara dara xar mi kay daa jekk rek. <laughs> bu soobee yàlla daal dinaa la may da kuy may doo taa mu aaral ma may. man kay taawu ma loo ma defal baax na man damaa rus suñu tool nii kay yow kay. bàyyi laa aaral kon ma la ko ma def yàpp nag ak yàpp xam. cay lii tey <laughs> waxoon nañu ko ma ma sikk ma sikk rek boo demee ak ku koy lekk ak yow. daanaka ah. ko lii day yàpp la. xam na ne nit ku baax nga ku gore nga. ku am jom nga liggéey rek nga fonk politique moo la boole politique moo la boole si affaire rek waaye yàlla xam na ne sa place bi wallaay la si mooy sa politique yow neexal la ah? lii lii may def nii ah. eh, eh, damay def rek ngir eh, ngir ndeysaan gamu gamu ah. tax ma koy def de waaye nekkul ne toone tax ma koy def nekkul ne débat tax ma koy def monsieur le maire li ñu boole mooy liggéey politique. Ah. politique bi passé na. Ah. maa ngi nii ci suma njaay. dëgg la fekk si nag jël suma xaalis. parce que rogo yàlla la di nga di nga gàddu bakkaar boo xam ne. Eh. démb nelawu ma waaye comme baal lu xarit baal naa la. waaw waaw ren la ndawam. Ah. parce que fab sa dapam dinaa ko def de waaye bu ñaaratee. waxuma la may la ndawal waaye ay jaasi ñoo lay fekk. ñaar fale. genn wàll sax du ko amati genn wàll ana monsieur le maire ak agression. ma man kay man maa juum rek maa juum rek. xam nga ne sama doom bee ma jaay rek. ana chef de quartier ak agression. ana chef de quartier ak agression. tiit rek. ah tiit rek. ah man barke na ko yàlla wax bi may xëy si day def nii gis drapeau bi. damaa lu soxla ne ko xoolal rek drapeau bi drapeau lu toll ni monsieur le maire di agressé. léeg lu toll ni man sax monsieur le maire dinaa gàddu bakkaar ndax toujours damay jubal monsieur le maire ndax lu mu nekk ci suma xol. mu ma waxee rek ma ne monsieur le maire du monsieur le maire yow alkaati alkaali xam nga alkaali moom la Gambien di wax ne chef de quartier am teel maa la may boobu ak ñaari junni yooyu boo demee xam naa ne ku ci lekk boo ku ci lekk nag nee ko ah billaay bi bii yàqu gàcce la laxas laxas amul laxas laxas amul jërëjëf maa ngi jëf waaw baal ma baal ma dama doon <laughs> balaa xale yi di dégg sax li ma lay wax waaye euh, chef de quartier moytu chef de quartier kii waa Sénégal ndogu leen dafa ak feem yu bees. waay namal ñu ci ndogu leen dafa ñëw ak. ah donc lan eh ah, macaroni pala oy macaroni pala pala pala <laughs> ay dami tay hmm? dami tay bu bëgg yett di ma matt yoon di paya nga xam kañ jaa di di di matt yoon di paya dama la ne maa yaa tey di moom gurguru moom mari aujourd'hui eh. là c'est aujourd'hui oh sada yi sada yi fele ko sunu seetaan respecte boole toi arrête ta bouche et moi de faut même pas rentrer ta bouche mes paroles même

jàppay bi. tan bombe ah. yaay séddale wala man eh. papa tey yéen neex dafay. Ah, kay yaa neex dafay. Ah, ñu reer. waaw am na lu xew. waaw ah. kay. Hmm. Hmm? yaa waxoon góor bu nekk góor la war a doon. Hmm. loolu dëgg la maa ko si suba si fii laa la ab ñeenti junni. nga ne ma mënoo ko. munoo ko tey munoo ko ëllëg yor te man booy dangay gore ba xëy dee lii nag man maa génn dem lijjanti ji ko hmm. delloo xaalisu jàmbur bi hmm. bi nga doon yaakaar ne dama ko nar a lekk ba ma ko delloo ah. waa ji daggal ma yàpp jox ma dix mille ma ñëw jox ma yàpp kon oh. kay hmm. alhamdulilah moom kay dana ah. Ah. góor kat day doon góor boo dee góor rek kii woro fi reer sama yaay koy pii ah eh, eh, c'était pour nous deux elle m'a pas donné pour moi. mon mari voulait demander il a elle a refusé. sama yaay sama yaay goy pii mooy sama yaay. xoolal mère man yee na ni ma du yett ci matt yoo de. non non xoolal bu nekkoon man laa mère damay gore dem lekk ba pare am mu nekk ak gor point. fii daal na doon gor rek. waaw bañ a lekk. waaw kan la. elle va même pas manger. xam nga la naan. mon mari a raison. man daaw mbay rek. lu ma waay gën a bëgg ma ba ko. fan la porte da ngay réer. yaa yaa da ngay yeeru ma. ci dëggee goy fu mu dëggee goy fu mu dëggee